ñun ku ñu war a àndal waaye loolu jaruloon sax xaar yaakaar naa ne ku ñëwoon Grand Théâtre gis ko lu fa xew le premier ministre Amadou Ba def déplacement ñëw ba foofu te man musuma varier si sama position man dama ne damay ànd ak ku nga xam ne président de la république Macky Sall moom la choisir te ce choix là n'a pas varié moom kan la choisir muy Amadou Ba kon yéen ñëpp dama leen di wax bés ni ki tey que ñun waa SDD Yonu Naataange man Souleymane Ndiaye Amadou Ba lañu jàppale insha allah ngeen la fin la récréation nu ma meloon ak Macky ñoom xam nañ ma nu ko raw laay mel ak Amadou Ba man man man man man gaawuma gaawuma engagé wu mais du ma dugg dugglu su may dugg damay ne sarax te bés tey bés tey Amadou Ba dina xam ne am na un bouclier dina xam ne am na soldat bu nga xam ne waxuma ne amu ko woon de waaye dina gën a sant yàlla parce que ñun ñun yàlla dogal na am nañ mbooloo ba pare suñ ne fit Sénégal ah ragaluñ dara coalition Benno Bokk Yaakaar ñun ñëpp booloo neen doon benn yaakaar naa ne loolu rek moo doonoon cat mais comme ñun ñëpp booloo neen doon benn wax dëgg yàlla balaa midi incha allah rabi di ngeen dégg vive Amadou wax dëgg yàlla yàlla subhanahu moom kese moom leen ragal yaakaar naa ne fii réew mi bu mu fi tàngee ñu bëri daaw leen de mais ñun mosuñ dañoo mos taxaw de la même manière neen xam ne détermination buñ amoon tey leen ko gën a am te tey lañu gën a xeex pour jàppale amatu Ba nga xam ne day remporter élection yi dès le premier tour te bu leen kenn nax bu leen kenn nax ñu nga xam ne ñoom seen objectif mooy lan mooy yàq lu nga xam ne Sénégal président de la République Macky loolu la fi liggéey ñooñu seen électorat du dépasser quinze pour cent bu leen nax bu leen buñ bu leen kenn nax bés ni ki tey dinañ wàcc sur le terrain liggéey pas seulement ak Goudomp comme ñu ko bëri yaakaare déedéet parti bi le parti est national ñun lu ñu jaay si carte de membre ay junne junne junne carte de membre la à partir d'aujourd'hui yan ñu ne fi saal yëpp bugguma kenn des Dakar ku nekk na wàcc sur le terrain man ngeen doon xaar jox naa leen digal wàcc leen si le terrain ñu liggéey ku nekk nga fexe ba sa localité nga gagné ko ku nekk soo gagné sa localité loolu su boobaa à midi vraiment la messe sera